est ce que yaa ngi xaar ay tournée internationale yu nekk ci gannaaw ay tournée yi nga xamante ne fii ci biir réew mi la Talla est ce que yaakaar nga ne amee nga noonu ay fans ah mais xam nga tey fii képp ku fi soog a noonu ay fans da ngaa foncé wala sa talent ba bëgg la donc moom même bu dee kenn bëgg na ma rek donc sant yàlla te gis naa kenn ku ma bëgg donc maa ngi a wér d'accord euh, fan yi lu bari am na fii ci benn wax boo waxoon xam nga wax bu nekk nag ak ku ne na koy déggee euh, bëgg nga jéggalu parce que ñun ñëpp ay sénégalais la ñaar ah, te dañ lay pousse comme ndaw nga ok sax parce que Bicham man ni ma waxee wax ji ak ni wax ji c'est différent man j'ai dit que sama staff su ma waxoon ma rey ma rey ndax musique alors que gars yi dañuy interprété naan taala nee na bu ko jaralee mu rey rey mu rey fii kenn jëlaat du fi rey kenn kenn fi kenn donc façon de euh, parler rek pour bëggoon o gars yi que ñu déglu sama album. donc ba nga tey ñun ñoo nekk ay jeunes yoo xam ne amuñu télé amuñu rajo donc euh, a gaaw pour ñu mën a jaay suñu projet mooy créer polémique. donc nag du ma dugg studio un an ah di di préparer sama album donc tey sama staff sont des musulmans ay musulmans lañ tey musulman du la du la wax nit. donc waxuma la bi nga xam ni saa am na ñu naan sax daa am na ñu naan araamul donc nag jaru dara jaru ko fi quoi façon de parler la woon pour faire la promotion de mon album mais fii rey fi kenn mais tey nga gis aar bi nu mu xatee ak gars yi buuxante bi hmm. ak ñu ci mel ni ñoom waal yi nga xamante ne ñoo téye bës bi est-ce que yaakaar nga ne Talla am na fi place tey. Hmm. waaw mais d'accord xam nga tey képp ku fi ñëw amoo fi am place da ngaa forcé ba am place xool ko si mën naa ne euh, succès bi Alioune Mbengue amoon Sénégal. du yomb bu suñu am ko Sénégal voilà. Euh, kan mooy sa idole ak kan ngay defanteel actuellement. defanteewu ma kenn. non mais am na am na ñoo am na ñoo fi bëgg a jëlee. non mais defante dëgg mu xam nga tey esprit boobu moo war a dañ Sénégal l' esprit l' esprit esprit bi nga xam ni damay ñëw pour jëlee fi diw. Mm. man damay yéene yëpp jàmm barki Serigne Saliou. man lu ma lu ma war a am nit soxla moo ko sama bag am moom damaa yéen ñëpp jàmm ñëpp laa yéen jàmm donc bu ñu commencé ci Youssou Ndour ba ci man mi nga xam ne maa gën a ndaw ci musicien yi ah ci nekk mën ngaa dem nga tibb sa côté te loolu laal sa morom voilà. mais tey ak critiques yi ngay gis yu ci bari ci internet bi ci sa papa ban yëg-yëg ngay am ci loolu. mais am na artistes yoo xam ne ñu ma ëpp ñu ma ëppoon critique te heure bi dañ na ñu ko doon saaga sur cinq ans heure bi boo ko boo ñooy tontu. te xam naa ni man noonu lay demee. Eh, jaajëf incha allah léegi ñiy sànni xeer sa papa nag parce que na de. waaw ah, loolu <laughs> taala si taala. mais ban yëg-yëg nga ci am yow en tant que doomam. non mais déggoo li ma la wax nit ku nekk bu sañoon duñ saaga sa papa mais tamit ku bët bëgg xaj mbow la. voilà lay jaajëf jaajëf.